donc mu ñu jógee ci président Macky dañuy daal di ànd ak Abdoulaye Daouda Diallo mu ngi lay nuyu Diallo. Eh, maa ngi lay fay maa ngi lay nuyu. di mhm. nuyu Sénégal. Mhm. di nuyu le président de la République. Mhm. son excellence le gardien de la constitution il est au service universel. le président de tout le Sénégal di la di la nuyu di nuyu plateau. Euh, Abdoulaye euh, mi ngi doog am sax une semaine parce que lundi bee passé yow la ñu fi invité woon ñu wax la ne la ba xam dangay ànd ak euh, Amadou Ba. nga wax fi wax yoo xam ne mooy loolu kon donc à ma surprise tey ñu xëyaat démb ñu di gis la nga ànd ak euh, ki nga xam ne moom moo di Amadou Ba nga ne bàyyi nga lépp euh, da nga koy jàppale lu waral boobu changement bu gaaw lan ah, ma koy def de la ah, mhm. ma def ko ci kol bu sedd guy. <laughs> bul jooy. dama bëgg nga jël lépp nga teg ko ci suuf <laughs> après ma teg ko ci suuf. sama léegi matt yi ngay matt pour lan la kuy. <laughs> di wax que ni. am na lu xamante ne bi moom lay élection yi ñu jëm. Mhm. yàlla nañu ko perte ci dignité. kan perte. <laughs> Mm, perte ko ci ngor. déedéet président Macky Sall nga ni moom moo la woo. ñu perte ko ci fulla ak fayda. ah élection yi ngeen perte ko yéen waa APR. ci kàttanu yàlla jubantal parce que aussi président nee na ñu ànd ak kooku. kookan ah. kookan Amadou Ba. alakam. alakam yéen jubóo woo leen kon. waaw wax na ñu ànd ak alakam. mënuñu def lu dul ñu ànd ak alakam. waaye ànd ak alakam bi yëpp aussi tamit di ñaan yàlla perte bu gaaw. et eh. ñu perte. kàttanu yàlla parce que man sax dinaa koolaat bu baax. suma suma digal suma ñi àndoon ak man ñëpp yaakaar ma ni pare nañu pour woote woote le candidat Ousmane Sonko. Eh! président Ba du ko dégg. dégg na ko kay. yow kay àdduna bi yëpp a ngi lay dégg. waaw kon digal ji ñaax na Ahmadou Ba alkam Ba. Amadou na parti ci ñu mu gën a gaawee parce que amul amul projet. moom lu mu war a def pour. mais yow euh, ADD. yow ku la joxoon réew mi. ku ma joxoon réew mi. dama diglu rek dama ne président Macky Sall yow ku la joxoon réew mi nii la réew maa ngi noonu doxalal. ba ngay wax sa candidat yow réew mi bu la ku la joxoon réew mi nii la réew maa ngi noonu looy def. Mhm. li may njëkk a def mooy defar justice bi ba mu jub. kon justice bi jubul. kon da ngaa eh, eh. déedéet ah eh, loolu wax da nga da nga defal justice bi ba mu jub kon ça veut dire que kon da nga ni indi démocratie ci réew mi liberté. Ah, réew mi amul démocratie am na waaye damay dolli daal di indi daal di indi liberté. liberté pour euh, liberté pour nit yi wax aussi tamit fekkee. encore kon donc liberté amul ci réew mi. Euh, man ndax lii moo gën ci man de man de Amadou Kaw ma nu muy campagne de. illa illa ala jërëjëf dige yi nar na doy waar. jërëjëf jàll Amadou lan la war a dige sax. Ah, ah. daal lijjanti leen ko. mais mais Ablaye Amadou un an mi ma foogoon ni seen candidat bu defee un an ci premier ministre kay danañ ko war a jox bilan bu baax. mais seen communication yëpp mooy un an bi doxul doxul doxul. mais lépp pour daaneel ko rek. <laughs> jërëjëf allez jërëjëf. mais Amadou Ba gars yi dañ ko bëgg a daaneel ah. bilan <laughs> bilan bi ñu ko defal. dañ ko bëgg a dañ ko bëgg a nërmeel ah. gis nga ah. Ba moo bëri ñu ko compte. Ah. même ci biir parti ba ñoo ko contre bari. aywa loolu de vraiment. ayca ñu ngi leen di remercier incha allah euh, ok ah. ok Mbaye maa ngi lay jaajëfal bu baax a baax.